gendarmerie yi fële des quatre la lu toll ci euh, quatre euh, camionnettes euh, bu gendarmerie ñu ngi noonu trois yaa ngi noonu si ginnaaw benn jiitu na si kanam non ça fait la deux deux ils sont de cinq cinq camionnettes gendarmerie moom moo nekk fii alors deux ñu ci kanam deux mu ci kanam trois mu ngi ci ginnaaw donc ñu ngi woon ci dëkk bu ñu naan dàgg mais day jékki-jékki am naa autorisation filmer sama caméra ma woo wen bii mu ngi noonu ñu ngi génn fi nga xam te moo dëkk bu ñu naan dagg fii ci Morolan jóge nañ fi nga xam te moom ci village bu ñu naan. nee nañu xale yi waruñoo topp le président. alors jóge nañ aussi euh, ci dëkk bu ñu naan Njaay bopp su ma jublu ci tur bi alors euh, gendarme yaa ngi noonu. convoi ah, baa ngi jéem a avancé. waaye bi laay nañ ko ñam 2024. waaw dama Macky Sall bu la leer bu yeboo nga xam ne Tamba nga jëm. baax nañ fii parce que ils vont nous sécuriser. dara gënul dara gënul métti ngi intimidé xale alors mu ngi noonu ñoom euh, bloqué nañ li nga xam te moo di euh, bi alors euh, ñu ngi jéem a accéléré dagg convoi bi mu ngi noonu mais n'empêche convoi baa ngi baa ngi avancé alors dañuy top li nga xam te ne moom moo di itinéraire bi xale yi ñu ngi noonu ñu ngi euh, jéem a ñu ngi jéem a doubler convoi bi donc euh, yeneen euh, yeneen oto yaa ngi noon taxaw yeneen oto yaa ngi noonu taxaw. mu ngi noonu. noonu nee na moto yi dañ leen a wàññi moto yi dañ leen a wàññi. gars yi finalement lii mooy dictature. moto dañ leen a wàññi. amuñu droit dox fekk librement à leur alors euh, convoi bi dafay jàll waaye nag euh, la gendarmerie nationale dafay tere euh, li nga xamante ni moom moo di moto yi nga xamante ni tey ñoom ñoo topp ci convoi bi dañoo tere ñu ñu ñu ñu topp cortège bi dañ leen di tere jàll alors dem nañ ba fële ñu dëpp leen gis ngeen ñu ngi noonu ak seen ay dispositif yàlla ñu ngi noonu ak seen ay dispositif nee nañu xale yi moto yi yàlla ñii dañoo paniqué ñii xamul lu ñu taxaw nee nañu nee nañu yeneen oto yi yeneen cortège bi téye nañ téye nañ oto yene ca ginnaaw dama ko fekk rek toog ñëw ak ci ñoo ko ma defal terminé ma ignoré ko waaw loolu